El Hadj Keita nuyu la. fay naa la buur sama xarit. après grand théâtre ah après grand théâtre ban impression la am par rapport ak événement waa waaw sant yàlla di remercier sénégalais yëpp di kontaan ci waa Dakar ak ci parce que ñoom tamit jàpp nañ ci bu baax macha allah kontaan naa daal ci Sénégal wan nañ ma seen cofeel ci man. waaw macha allah parce que c'est pas évident nga woote ñu wuy si la loolu damay remercier waa Sénégal yëpp di remercier particulièrement waa Médina. parce que ñooma ma dooleel ñoo jàppale ñoo tax tey ñu xam El Hadj Keita mais keroog événement bi euh, El Hadj am na ñu daan fekk ci seen i seen dafa naa mës naa la ko laaj mais keroog gis ñu leen fa qu'est-ce exactement réellement. comme ñan si. waa si dafa demoon Gambie dafa demoon Gambie waa mais ñëw na répété ñëw na répété wàll tamit dafa demoon cees mais ñoom ñëpp déggante nañ amoon nañu yéene bi ñëw. parce que comme lima ma la koy waxee man ñëpp samay xarit lañ aw ma problème ak kenn ñom ñëpp amon nañ yéen a ñëw mais dañ nekkoon seen liggéey motax tax ñëwuñu loolu képp la waaw. mais tay nga ñew wuy si sa parent hein ah, Youssou Ndour ku ne xam na ni euh, jël na la def le relève. wa sant yalla sant yalla parce que c'est pas évident suñu papa déplacer wu ñëw ba medina euh Médina euh, euh, motiver euh gën ñu gën ñu ñaaxaat gën ñu yokkaat jom motax tay mom bu xewlee ñun dañuy bàyyi lépp ndax suñu papa la te moo ñu wan yoon te moom moo tax ñu bëgg musique moom moo tax ñuy góorgóorlu moom moo tax ñu bëgg musique moo tax bu wootee rek dañuy bàyyi lépp bu ñu amoon programme sax dañ koy bàyyi ñëw fii. waaw nga ni kon Youssou Ndour mooy le roi du mbalax ba tey. bien sûr mooy roi bi loolu amul sikki sàkk am non kooku suñu papa la suñu papa la bokkut ak leneen bokkut ak leneen en dehors de la musique Youssou Ndour c'est un grand monsieur waxuma la ak nag. mu nekk sunu roi mooy roi du mbalax loolu dafa leer nañ waaw. El Hadj ban relation moo ko boole ak Youssou Ndour. waaw relation papa ak doom ak relation boo xam ne tamit euh, mi ngi juddoo ci Mbacke Dioum suma papa moo koy nuyu de passage Mbacke moo tax lii yëpp am ba pare euh, euh, muy fierté Medina ñu dëkk Medina muy sunu papa moo ñu wan yoon bi.

O alineago. Eh,